ñu ne doomi maam jaara jag maam Mor Anta Sali Bamba ne waay waay jantu jant yi sayyidina Muhammad la sëñ Bamba ne waay waay kilifa kilifa yi sayyidina Muhammad la sëñ ku lay wéttali yonent bi ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سن بامباني مولم وليوي كلين دي ويتلي موي گنجي اجي ويتل موي رسول الله سن بامباني yow mi am feebaru dënn sëñ Bamba ne ki koy saafara mooy sayyidina Muhammadu yaa udaari sëñ Bamba ne yow mi sa kër leerul ki leeral kër yi mooy sayyidina Muhammad rasulillah badrul budaari sëñ Bamba ne mbooleem weer yi am nañu weer seen weer mooy sayyidina Muhammad rasulillah sëñ Bamba ne kiy feeñal xéewal yi kenn la mooy sayyidina Muhammad xéewal gu yàlla def wa in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha xéewal yi yàlla defal doomu aadama bu ñu ko doon wàññi du ñu ko mën a matal de sëñ Bamba ne xéewal yëpp yàlla nga ko def ci darajay sayyidina Muhammadu sëñ Bamba ne taw la taw la ci bari ni mu baree njëriñ dafa mel ni taw ni njëriñam baree daa mel ni taw ci koo xam ne santaa yàlla la yàlla ne la in shakartum la azidannakum fekk ngeen may sant ma leen di dolli sant yàlla dëgg mooy di kañ sayyidina muhammad rasulillah lazul kafari sëñ bamba ne baayu fatima jàmbaaram boo koy wax dafa mel ni gaynde la ci digganteem ak ñi weddi yàlla lam yakun alladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina حتى تاتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة sëñ Bamba ne ñi weddi yàlla Seydina Muhammad daa mel ni gaynde ñaloor ci ñoom sëñ bamba ne sayyidina muhammad mooy dàq noon yi sëñ bamba ne ñi bañ rasulillahi ñooñu day mooy nooni lislaam jannatu haadi inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu lfirdawsi nuzula xaadimu rasul baayu sëriñ saaliwu mbàkke borom gotak mbuur yal na yàlla dolli leeram te taas ñu ci barke nee na sayyidina muhammad ajjana la ci ku ko topp moom rasulillahi sëñ bamba ne aji noonu rasulillahi la lay xaar daal mooy safara sa nga xamante ni ku fa dugg ma yawma tubaddalu l ardu gayra l ardi wassamawatu wa barazu lillahi alwahidi alqahar wa tara almujrimina yawmaidin muqarranina fi lasfat sarabiluhum min xatiranin wa taxsha wujuhahum annar liyajziya allahu kulla nafsin ma kasabat inna allaha sariu alxisab hada balagun linnaasi wa liyundaru bihi wa liyalamu annama huwa إله واحد وليذكر أولو الألباب moor yow laay déglu déggatuma la loo wax. fal fadlu badi lilu xalaay ألا إن فضل الله ألا إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ngëneel daal sëñ Bamba ne yàlla nga ko teg ci loxo Seydina Muhammad Rasulillah fadlu badilul xalaay mayl xataaya badilataaya رام علما أو رام خلما أو أو أو رام سلما أو أو أو رام سلما فدا باقي النخاي فدا وساك يهدى ودا وساك يهدى ودا لو يردى إن رام إن رام علما أي سن بامبني إن رام علما foofu laa koy daggee in raama in raama inraama inraama sëñ Bamba ne inraama booy wut xam-xam booy wut xam-xam ci rasulillah ndax xam-xam kat ñett la yàlla ni yonent bi benn bi xamal ko ñëpp mooy xam-xamu sharia ni ko benn bi na yem sama digganteeg yow secret la bu ko keneen xam ni ko benn bi seetal ñi la neex nga xamal leen ko sérif maam mii am na looy soxla dem ci moom am na loo xam ne yàlla xamul ko ñëpp te xamal ko ko bu ci waxee ak yàlla yàlla force day nangu la mu ñaan boobu mooy seetal ñi la neex mais am na lu lay réer ci sa diine nga laaj ko sérif maam yi amul droit bañ la koo wax force dala koy wax waaye am na ci boo xam ni yàlla ak yonent bi rek kenn xamu ko jibril daa ñëw naan ko yàlla ne kaaf mu naan ko d'accord haa d'accord je comprends yaa mu naan ko maa ngi comprendre dama dama dama ayin si si si c'est bon c'est bon na bi naan ko araftu maa ngi xam jibril ni ko waaye nooy xamee lu ma xamul man man mi ko indi sax xaw ma ko nga di ko xam mu ni ko hada sirrun bayni wa bayna rabbi lii secret la man ak yàlla dong ñoo koy xam sëñ Bamba ne xam-xam boo bëgg ci xam-xam boo koy wut seetal baayu Fatima maamu Cheikhuna Tidiane Sayyidina Muhammad Ibrahima El Hadj Ndiaye ñëw na di seetaan oh. oh. wal xalami يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم إن رام ويساك خدما eh eh sëñ Bamba ne booy wut koom alal fexeel ba am yonent bi ngeen defee ni man ñàkk naa dara billaahi lazi laa ilaaha illallaah démb damaa jóge taseet daara ja xale yi dañ may tooñe léeg-léeg waruwaay bi ma yor embouteillage am diggante cité Senghor ak route nationale bi fi ma taxaw noonu benn jigéen ñëw pom lay jaay jël ñetti pom jox ma ni ma 2 laa la xam ni dama la bëgg ngir yonent bi yamar laa tudd te mu ngi toog di jaay ay fruits banaana yooyu ki ay pom ya sax lekkaguma ko mu nga ma denc waaye dama koy lekk incha allah ndax li tax mu jox ma ko xol boobu ma ko lekkee rek mu jëriñ ma beneen jigéen bu toog ca wet ga xam naa ñu ngi seetaan 2S ci Cité Senghor moom it mu ngay jaay ay meew meew yooyu di jar juróom fukk mu jël ñetti potu meew ñëw moom it ni ma billaahi ni nga ñuy bégale yal na la yàlla bégal noonu yal yàlla fay 2S mi ñu koy may daal ni ma am sama addiya billaahi fi ma gaare benn taximaan ñëw ni ma man Cheikh Talibou ya laa tudd dama la romb rek séen la maa gaare nele dama la doon jox addiya jël téeméer jox ma nabiyun rasul eh, eh, kon illaama eh, loolu nga defee ni lan moo ma ko may ngeen defee ni bàyyi la du bàyyi du ndey du tur du taar xam nga lan la mooy yonent bi sëñ Bamba ne wut koom koom jarul sonn fexeel ba am sayyidina Muhammad waay waay boo amee yonent bi am nga koom yàlla nañu yàlla defal koom ci barke rasulillahi nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun habibun yàlla nañu fekke déwén yàlla nañu fekke samedi xaribun shakirun wa wa shakirun jawaadun karimun min makarimi yusunu yow yaa war buraax dem asamaan ànd ak dem jinaan pour yàlla may la loo ko ñaan su keesi géeju xeewalam yow yaa giseeg borom arsiyaasi mi dul morom mhm. yow yaa fi gën amoo morom sala alayhi wa sallam balaa fajar nga dellu si xar yu ni wàcc si yàlla nañ fekke déwén mbokk yi lenn rek laay sàkku jox Cherif Maami ñu ñaan parce que fii bu ñu fi toogoon di wax ba fajar xam nga ku ma jaaxal mooy invité yi war a dugg après te ñooñu sax boo demee toog di seetaane leen di dàqal xam nga lu tax ki ñuy wax ñépp a ko bëgg gis nga kër gi lu ngeen ñaan pour xéewal ji dolli ko rek ndaw na yéen yéen yéen yéen yéen ñépp laa bokkal waaye yéen a ci gën a jege fii lu ñu fi amul rek ñun la neex nit ñi sax a ngi coow naan lu tax ñuy def koor ba koor lu tax mënuñu jël semaine wala nangam ci ñun la des de maag Chérif Maami ñun ñoo xam ni nit bu signé contrat daf ko war a respecté te suñuy programme ak suñu yitte mayuñu semaine bu jot ñu mën a respecté loolu moo waral ñuy def le tout pour di ko def koor gi rek yem ci waaye bu dul woon teeg loolu billaay alaaji Njaay tijjil nañu lépp techniciens yi bëggal ñu seen bopp te nag lekk ñu dara bàyyi ñu gis ngeen seen doom yee ñu bari ci yéen ñii seen i doom maa leen jàngal alquran seen doom yee ca daara jee ca taseet car macha allah bu ñu ko réaliser mu doon ay millions yu bari li cëpp fii la jóge ndax bari waa na ku yëkkati dara jox ñu fii la ñu xamee donte nag ci la ñu nekkoon waaye fukk yu ñu jox juróom-ñett yi fii la ñu xamee te fii lépp lu fi dugg xam naa ni du ma wax ni la ci ëpp ñoo koy lekk de waaye lañ cay lekk bari na lool waaye nag yàlla may nañu xol boo xam ni saa bu ñu joxee fukki dërëm yu jóge fii ñu jël juróom ñaar yi def ci daara ji delloo ko lislaam bi tax ñu jox ñu ko yal na yàlla fay leen Chérif Maami loolu rek moo doonoon kàddu yi kon mbokki jullit yi lii moo doonoon seen spécial gàmmu incha allah samedi bii di ñëw à partir de vingt 22h 2STV ak spécial gàmmu Chérif Maamine Aydara Tafsir Abdourahmane Gaye incha allahu dimanche jël la 9 laylatul qadri tey nag dañu am gan ndax alaaji day seetaan ba yàgg yaramam tàng mënatu koo muñ mu deppaat daw ñëw taxaw di seetaan mu nga taxaw ca biti ndeysaan di seetaan duggul ci palaato bi loolu tey laa ko mës a gis moo tax ma xam ne tey gàmmu gi alaa daw mena alaaji yal na yàlla may wér yàlla yàlla yokk sa sutura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 عاجل ذو جزع آصف يا الله يا الله إليك مد اليدا رجاء مغفرة هب لي مسامحة يا الله يا الله تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وإنني ربي خفت الغرق يا الله وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله هل من مزيل بما قد كان يورده رب العباد عليهم ربي الله ونافذ حاكم فينا إرادته كما يشاء وجل الله يالله وسامعا والدينا وسامعا والدينا والشيوخ ومن قد ولدوا وذووا الإسلام يالله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبر عنها ربي الله نامت العيون وغارت النجوم وأنت الملك الحي القيوم وقد غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حرصها وحجابها وبابك مفتوح للسائلين فها يا ربي أنا سالك ببابك مذنبا فقيرا مسكينا أسيرا جئت أنتظر رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أين تجل ربي بفاتحة الكتاب وآيها وبسرها آمين. وبسر باء البسملة آمين. وبسر يا رب صلاة الفاتح آمين. وبآية الفتح العظيم وحسبلة وبآية آية الكرسي أجل بالشفاء بالمصطفى وبسرها الهيللة بمحمد وببنته وببعلها وابنيهم السبطين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى amiin yaa rabbi amiin kon nag ba samedi incha allah incha allah ay dara jërëjëf Xaali Ousmane ay dara jërëjëf. laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah. Allah